làq naa ngërëmal yàlla ñetti junni at la koo tëdd man seera faal ah ma sàmm ngay waqi mu ni faal mu ni ma sàmm ngay waqi ndax xam nga akramatan mu ni ko diril faal mu ni ko ab làbbe la ab rak akramatan làbbe la tuddoon ab làbbe la woon ma nga woon ca xuntuma ca saam xuntuma ca saam doom akamaa yàgg saam moo tax Cheikh Massamba Diarra Mbaye bi mu ko woyee ne ko sutur bi dem na ba saam yaram bi naam faal kenn agsiwut sa óom mu ne ah, doom day ah doom ma sàmm a may wax na dëgg doom sama tur waa nga sàmm waaw ma ne waaw nañ ma dimbali rek ba ko fees nga dencal ma ko ba ma noppi ndax fi ne maanaam tout tànk yuy bëgg Cheikh Rafal dañ may tàngaloo ci Cheikh Ibra waaw ndax Cheikh Ibra kuy réer di nelaw xamoo ko ñuy xotti pi yàlla yi dem ñoo ko xam waaye kuy réer di nelaw waroo xam Cheikh te dañ ci lot ci xam ko kuy reer di nelaw xamoo Seex Ibra kuy reer te am kattanu xott ci asamaan yi yaa war a xam Seex Ibra ba war a xam ku Seex Ibra ba war a mos ci ngëneel Seex Ibra yi waaye doon ko tànk di juddu xamagoo dara di bëgg Seex Ibra loolu leneen la moo tax man ñii ñoo ma intéressé ñoom laa bëgg a waxal maanaam naam sax xaw ma ci kamay wax dara waaye ci ndimbali gi ma dimbali moom Seex Ibra ci laay wax ak moom déglu ki ma lay waxal kan la. ba tax loo ko jiiñ ëpp na loolu foo fooy jéem a teg Cheikh nga ko jéem a imaginer Cheikh la weesu loolu ngay lijjanti moo tax mu ne la lëjj ci man moo gën nga di ma lijjanti Cheikh Fall nee na nga ne ci man moo gën nga may lijjanti xam nga lu tax nee na ba ma tudd Akramatan booba Sumayratu mooy ñëw di ma laaj man Cheikh Fall bu Sumayratu dikki laaj ma ma tudd Akramatan ne ci biir xuntu ma dal ni doom akamaa yàgg a wax ak yàlla ma sàmm njaay wax ak amaa yàgg a wax ak yàlla Cheikh Ibra yàgg naa wax ak yàlla lool yàgg naa digal sama borom muy def moom Cheikh Ibra yàgg naa digal sama borom muy moo tax mu ne akramatan ba ma ko tudd maa ngi ci biir xuntu ma su laab ba jaaxlee dikk ci man xuntu mi man Cheikh Fall ma wax ak moom mu wax ak man ma wax ak sama borom ndax sama borom nagul leen doom ak yàgg ak yàlla moo tax mu ne ku dul sëñ Bamba maa ko mag ku ma waxal doom nga ci man. Samba Ndiaye wàqi mu ne ko faal mu ne ko injil ak sabor ak tawreet ndax xam nga leen mu ne ko déedéet faal mu ne ko ay téere la ña ko yoroon bi ma leen koy jox booba jibrilu muzammilun laa tudd booba Cheikh Fall jibrilu muzammilun la tudd jibrilu muzammilun moo tax Cheikh Ibra tudd na jibrilu muzammilun la tudd na moom Cheikh Fall am na fukki ndey ñett Seydou Ndiaye sukko jur wàcc na fu ne am na bàmmeel bu ne am na sant wu ne bari na fu waay taxaw di jaamu yàlla kii daray jiy Cheikh Ibrahima la sukkandiku di jaamu suñu borom waaye déglu lan moo ko indi àdduna suñu borom moo ko ne àdduna yëpp boot nga yonent yëpp yóbbu leen boot nga xut bu samaat yëpp wane leen ku mas a ñëw jamono teel nga ko cumbikaayam ba bagage yëpp mat na waaye man yàlla ma ma dem ba xam ni àdduna jaxasoo na ma sàkk sama jëmm loo xam ne soo bootee loola yóbbu ko wane ëmb ba mos ba jaam ne mos te biir ëmb ba yow Cheikh Afal dootoo ma jaamootee sama jamo te dootuma la ko fay motax tax mu ni ma sàmm jaay wàq mu ni faal mu ni jàng mu ñëw ful yalla yàlla mu jak ne ma bo jamo dama ko fay may jamo ndax ndax ayibu jam ni motax mom fam fek tuuma gure lepp tek fa tuuma cheikh nako yam mom da fek tuuma tege cheikh dafa jël tuuma and ak mom mom li doon su ko waxoon tim dootu jamo yalla ñepp dañuy xey xëy di liggéey si dafa ba ñen bi soom ma sama jay wax mu ni faal mu ni waa alxuraan waa ma xame su ko aduna xame xamee woon liggéey ko sa borom نما وا waa àllaaxira xamee man Cheikh Ibrahima su ma ko waa adduna xamee woon lu way liggéeyati mën na ko yëg man Cheikh Ibrahima ni ma waa àllaaxira xamee su ma ko waa adduna xamee woon lu way liggéeyati yëg na Jibril nga xam Jibril koy wan lim magi Jibril la lay wax Jibril jibna na yo xiram diko bak di bak ko fa njëkk gën jibril bàkk na lu yàgg ku fa njëkk gën seerafal ne ma jilleeg jibril muy teggi tànk may teg tànk jibril na ko fa njëkk gën seerafal ne ko àddoom ah, jibril na gees mu ne ko xanaa foofa ngay wax kenn dafa newul jibril ne ko ña nga fa nañuy fay nekkee te nga jëm lan xamul ñu ne malayku ma